la première parole bi lan la wax nañ fàtte ma ci Amadou Ba la. ah musoo <laughs> wax ci Amadou Ba dara. il change de fusil d'épaule. maintenant c'est Amadou Ba le candidat c'est normal aussi ah. non de 2003 <laughs> d'accord de de 2003 à 2013. Mm-hmm. Amadou a acheté son patron au syndicat. Mm. musul am grève. moo ne moom ci boppam ñoo doon toog di añandoo di waxtaanandoo. moo takkal la jabar. ah ànd ak yow dàq sax. il il bi ñuy wax dàq je vais je vais je vais quand même dire une chose deux faits yi ma fekkee après mun naa daane mm. foofu ba ñuy dàq Sonko def nañu pression bu dul jeex ci Amadou Ba moom si mm-hmm. toog naa këram pendant les événements de mars affaire yi am fekk ma fa mooy toog ñuy waxtaan mënuma lii am nii ci dëkk bi waru woon am mm-hmm. parce que quand même man xam naa Sonko président de la république moi je suis un républicain mënuma dugg fu sori mais il préférable ñu mën a situation bi mu bañ a jur li mhm. parce que am na tamit loo xam ne boo ko siqik Mohamed Abdallah mhm. ngeen bokk doo du jom parce que pris de l'aéroport yóbbu ko ba ci président de la république lan lañ fi accusé wul Amadou Ba mooy financé Pastef mhm. moom moo teg Pastef moom mooy jox ay milliards Pastef lu ne wax nañ ko ci kaw ci Pastef ay information moom mooy Pastef mais kan mooy dàq Ousmane Sonko c' est pas Amadou Ba. non c' est Macky Ba. ah directeur général des impôts et domaines dañu xaar ba Amadou Ba dem teg teg nañ ko ci kaw table Amadou Ba plus de mois Amadou Ba signé wul radiation Sonko. mooy Cheikh Ba mayu ko. donc kooku am na loo xam ne bàyyi na ko ci ki nga xam ne jàngal na ko dalal ko ànd ak moom ñu séq ay teraanga mm-hmm. kooku bu nekkee tey man dégg naa man vraiment nag te loolu laay wax l'humanité dans la personne man bu may séq ak yow boo xam Mansour damay dund ak yow loo xam ne. merci dina xam ne kii mais de toute façon aujourd'hui oppose Amadou Ba à Diomaye. ni ko tull ama Sonko ak ak Amadou. donc c'est euh, normal a un duel. Mhm. il a aussi des nga mën nga wax ki wala sur les programmes. bien sûr mais leneen. mais de nga def benn benn virage de 360 degrés Amadou Ba tëju la prison. Mhm. Amadou Ba yónnee la ay prison. Amadou Ba fekkul la Casamance musul wax ci yow lu ñaaw. te man ne en privé musuma dégg sax waxuma Ousmane. mais ni ko décrire a l'impression dégg dégg xam nga xam nga nit ki seex nga mu nekk ministre ak yooyu c'est des moments. oui qui ne sont pas des moments privés. Mm-hmm. mais koo xam ne toog nga ak moom gis nu muy dundee musoo ko dégg mu wax lu ñaaw ci nit waxuma sax ay Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais nga dégg ko mu wax lu ñaaw ci nit. man ça m'étonne mën naa am ma juum de. mais non non bett na ma bett na ma torop boog Ousmane waxee. parce que quand sa fe fait 15 ans 14 ans 10 ans et quelques je connais le monsieur. boo ñëwee sax toog ko ne ko Moussa Tine wax na euh, maître Tine wax na lii. day maanu jël si ngoomam yooyu ko dem yoonam. parce que lan la lay wax da lay nit ñi dañuy ñëw ci yow jël information dem ne président de la République. te wax na lii loolu xam nga tamit euh, c'est un